ànd ko ak mboolem njabootu Serigne Touba gi yëpp ak mboolem kilifa diine yëpp di leen ziara bu baax di jégalu ci kaddu yi ni yëkkati ci kanam kilifa yu baax yi ñu nekk muy Serigne Hamsatu Mbakke moom Cheikh Abdoul Ahad ak Serigne Sidi Mbakke moom Cheikh Abdoul Khadir waaye Serigne Bassirou Mbakke moom Serigne Cheikh Thioro ci jataay bu solo bii nga xam ne dégg ngeen ni ko Serigne Fallou Galas ubbee liy sabab bi di lenn rek muy jëf yu ñaaw yoo xam ne dañ koo jëmee ci. Sanggup sangi di Mustafa sallallahu Alaihi Wasallam. momo moomu nga xamne mo taxone Serigne Touba jël leppam jeexal ko ci moom moo waraloon ay guddeem ak mu jeexal ko ci mom jëloon dundam geppit jeexal ko ci di sante boromam waye di ko liggéeyal mom kooku yonent bi sallallahu Alaihi Wasallam. kon nak bu ay kaddu jëme ca mom walay jëf serigne bi day bañ ko ko jégué ak kuko laal lolo taxone léppam mu jaay ko jox ko ko mu sallallahu alayhi wasallam bamuy wax ne samay keur gent na sama njaboot taggo nañ limako yobbe moy yóbbee tagg ko mom sallallahu alayhi wasallam te li tax ma diko taggit mooy ko rek kon defena mom rek dana taxaw di yëkkati aw turam dana taxaw diko kagn dana taxaw diko tagg ba jël léppam jox ko desewu dara jumlatu mali wal midad wal qalam hadiyatun lil Mustafa babina naam kon amul dara lu muy desal yonent bi la jël teg ko ci kaw ñëpp wane ni it moo féete ñëpp kaw ci biir ay mbindam ak waxam sëriñ bi nag dafa am lum ci leeral loo xam ne day wane ne euh, kilifaam gu sell googu gu tedd googu di Moustapha sallallahu alayhi wa sallam da ko jotale woon tey jii bakkanam ak njabootam ak léppam ki nga xam ne egg na ci wax ne dammi wa ahli wa awlaadi fidaa un lahu abdan xadiman lahu muskaana li sanada kon day mel ni tey luy ñongal mbiram joxe na ca bakkanam mu jaral koko, ko jaral noko ko joxe ak njabotam jaral na koy joxe daratam ndax mom ci bopam eggal na bopam ba wax ne dammi fidaun li khuruj dammihi wa maradhi fidaun li da'i jasadi yonent bi salaa wasallam bu deretam waroon wal joxe na sama deret man Serigne Touba mu wal waye bu warona tawatit man makoy wopal kon lolu wane na fam ci tollu ci mom ak jox kim ko jox bopam ci lepp jox ko dayo bu egg ci wax ne duma langano mom mukk mu taxaw may taxaw baa mu taxaw may toog wala mu toog ma di ko tiim waaye bu nu doon lang maa moom bu ma ko séenee mu taxaw sama lex ci loolu ndëggu dàll yàllaa koy def xaddi jaxaltuhu turaaba naxlihi yaa laytani laxidani bi fadlihi fonk googu ma ko fonk moo tax mu wax ne bu ma àndoon ak moom di dox moom sallallahu alayhi wa sallama ba mu ne jëyi ab tànkam jëmee ko ci ak dégg wala jiit war koo fet wala jaan war koo mat nee na du ma dandal dégg damay daw rek jël sama lex dëpp ko ca kaw dégg rasulullahi jogge ca beneen lex ba jàll kon na kooku wi wiqaayat rijil mujtaba min shawkatin wa maa yudaha aqraba kon lolo day wone fam tegon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la defon wetalam ci léppam mom la defon mom la beggon ba nga xamne amu dara lu muy bëgg li ñi wax ne xol nit dana bëgg ala wala nga bëgg dara sëñ Tuubaa nak mom bi man bi xubbihi nasitu layla wa dhahaban wa fiddatan wa khayla fàtte won na lépp gi rasul la amna ci mag ñi ku ko doon tag ko xamne bam ba mu koy leeral dane ko sa xol bi de lépp faru na ci du dom du dara te li far moy beug mustafa sallallahu alaihi wasallam sallam adaaba hubbul xubbul ya sanada fa xubbu xibbika yamhu xubbakal alwalada lolou kenn ci mag ñu baax ñi ko toppoon moo ko doon leeral bi nag dafa am fu mu teg bi sallallahu alayhi wa mu nu cëndee ñaari baat rek loo xam ne wane na ne yonente bi sallallahu alayhi wa kat amul kenn koo xam ne ni moom wala nuuru na dafa wax muhammadun zaharat jaharan siyaadatuhu mu ne yonente bi salaam ak sangoom ak jitom ak kawem dafa leer nañ li kulli khalqin zuhuru shamsi wal khamar ni ab jant ne fang leer bañ ko ko gis xamne jant la ko gis weer xamne li weer la neena non la ngeenelu rasulullah sallallahu alaihi wasallam feñe mune nak kon fan la nit di sikki sàkka ci ne yonente bi sallallahu alaihi wasallam moy ki kawe aduna bi yëpp ta fete len kaw mune moy ki nga xamne ne it ki koy nat ci kenn moy dof bi gëna gàtt am xel Sëñ tuba ne na buñ la doon laaj lo ab dof neena setal ki nga xamne day nat kenn ci yonent bi alayhi salaam jàpp ne moom la ndurul mune billahi lam yati wa laysa yati misla bna abdullahi til ayati giñna ci yàlla ne musta ñëw te du ñëw ku melni ni rasulullahi salaa sallam wallahi lam yaati wa laysa yaati xalqu ko misla sayidi saadaati ci yàlla ne mës ñëw sang bu mel ni sallallahu alayhi wa sallam loolu day wone rek fi ko teg ci aw melo ak sopp gi ko sopp mu waxit ne man shakka fii taqdimihi fa jaahilun wa xaafilun wa jaahilun wa wa zaahilun képp koo xam ne sikk sakk na ci jiitu gii rasulullaay jiitu ba kawe ñëpp fa jaahilun da ngaa réer waaye da ngaa sàggan waaye da ngaa alku waaye da ngaa man sakka fii kaw libna abdallahi muhammadin nuru wala fallahi ku sikk sàkk ne rasulullahi gi mooy leeru bindee fi nee na kooku ab dof rek la man laa yara ahmadana xayra wara foofu sax fa su shaqa in qalbuhuma nuwira nee na képp koo xam ne gisul jiitu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam nekk gën gi mindeef nee na ab xolam xol bu lëndëm la bu alku la kon nag Serigne Touba fii la tegoon kilifaam gi te kenn ku ne ci noonu ku laaloon Serigne bi mu jaral la sa bakkan jaral la sa alal ndax ni mu def rasulullahi la lañ ko def kon nag kilifaam tey moom la ñëpp moom lañ laal te kilifa ak Serigne Touba mooy kilifa ñëpp ndax moom la yoroon yàlla jiital ndax borom bi subhanahu wa taala dafa waxoon ne yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal nit ñi buñ bëggee ma bëgg le nañ la topp rek kon bëggee lu rasulullahi gën ko top, gën koy top moy bëggelu yalla ci noonu kon nak képp ko xam ab julit nga li naqari na yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee won woon képp ko gis loola naqari nang ko safara ci ñett moy ben boko ko wax na ko wax mo tax du def ni boko ko jëf na ko jëf mo tax ña mëna jëf ta bayyi seeni alal diko def ña mëna jëf ci diko xex diko def boko mënut amulo katan gi sa mën ta jallit mu naqar loola ci biiru xol ñett yoy la rasulullahi waxoon boole ñett yépp mooy naqare nañu ñu di ko wax ngir sëriñ bi naqare nañu luñ ca ci jëf di ko def naqare nañu ñu fas ko ci boole ñaan ak di ko naqarlu kon nag loolu sëriñ baa ngi koy wax ñëpp ñu di ko bàyyi xel xam ne rasulullahi daal mooy kenn gu mag mooy mbaar mi moom la ñu laal képp ku lib julli di wax ashhadu an la ilaha illallah rawati na ci weeram wi nga xam ne fu ne ña ngi ko fay tàntal ña ngay ku woote naan mawlidu nabi nañ xam ne kooku lañ jam tey kooku lañ laal jullit bu nekk am na lu ko war mu jóge ko ci taxaw ko ci ndax buñ xooloon ne badar ña doon joxe booba dara taxawut ñu seen i deret moo moo doon wal ci lislaam ci seen i dara la taxawee te kuréel bu néew la ñu woon te tey jii xéewal gi nu wër wet gu ne barkeb rasulullahi moom la ko ko waral kon nag rasulullahi la ñu laal te ab saay-saay bu taxawee laal sa kilifa da nga koy won ne ko ki nga laal waroo koo laal te mooy sayyidil xalq loolu moo nuy may jàmmi tey may na ko jàmmi ëllëg nag ndax intiqaamul dana waral di dal ci mbirum laal koog yàlla te mooy rasulullahi